maa ngi toog ñu tànn tànn tànn daal di pousse waxtaan ci ah ba kan nañu jox capitaine bi ak kii El Hadj Maodo Malick Sy moom moo ko fal capitaine de l'équipe El Hadj Maodo Malick Sy Sori barke borom Touba Mbacke mhm. laajal ma daani Kouaté ma daani Kouaté ñu ngi fii ngi toog moo daan ànd ak Medoune doomu góor gi Beskaay Diop buñ ko koy fal Beskaay ba Gorée. waaw waaw góor gi Beskaay. Gorée Gorée la daan supporté ah. waaw waaw góor gi mooy papa yi Medoune Diop. mooy papa Bodo. waaw waaw mooy papa yi Medoune Diop. d'accord ñëw ci match bi gaaw ñu dem. léegi lu ëllëg. xale yi ñu ngi xaar loo ci xalaat match mardi bi. yéen nag xale yi yéen laay waxal sama waxu démb moom mooy sama waxu tey sama waxu démb mooy war leen fas woo xam ne su dee jotee lii. ngeen ci kaw Pays-Bas su ngeen ci dolli tuuti ñeex barke borom Tuubaa Mbàkke kenn du leen attan. mais nag nag gaynde dëgg dëgg dëgg balaa soxor wala muy met mu gaañu. nga ni. gaynde dëgg. Mm. muy soxor wala mu met dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu gaañu fi mu ne actuellement je ne dis pas le Sénégal mais vous les Lions vous entre. le marteau de l'équateur est l'enclume des Sénégalais. <laughs> est l'enclume des Sénégalais. Famara Diédhiou xaw ma ndax nan la dugal wala du la dugal moom moo xam lu ko neex def waaye man daal li ma mën a mooy man xam naa li ma xam fi ma wéeru tamit xam naa fa. biir ma ne ci barke Borom Touba barke Cheikh Mouhamadou Abib Mbacké su la dugalee. nga dugal. bala moo gën a neex na bu ne bu xonq boobu nan Ndiaye. Eliman ah, mooy mooy Eliman. Eliman Eliman. Ah, Eliman Ndiaye. oh non non un bon organisateur. Mm-hmm. un bon organisateur day faufiler ci défense bi tas ko deux trois quatre effectuer une passe Bamba daw dugal loolu si ngeen ko defee ndax tey fii mu ne jeex na amul pardon amul dara lii ngeen ci war a teg Aliou Cissé nag su sañoon nga ñam gune yi waaw football ak bëri ndaw a koy def football ak bëri ndaw moo koy def. nga ni boo sañoon. mu ñam gune yi. mu ñamal leen ndax nee nañu Équateur doonoo am. doonoo am condition physique. dégg naa seet comme les Kenyans en course de fond. altitude bi ñu dëkkee moom moo leen ko may du ñu sonn doonoo am koor ndax altitude gisoon nga ay minute iftaire dix mille mètres cinq mille mètres ni mu ko daan bëggee gis waaw gis nga ay abri bi la laa mille mètres les fondeurs les demi fondeurs ak trois mille seen spécialiste la ndax altitude bi ñu dëkkee la léegi nag il faut ngeen tenir leen da ngeen leen di dóor loolu moom da ngeen leen di dóor waaw da ngeen leen di dóor da ngeen leen di dóor ci barke Cheikh Mouhamadul Abdou Mbacke ibnu Sëñ Abdoulaye borom dër bi mais nag du ne da ngay bàyyeeku mooy match bi nga xam ne su fi jógee kenn ku nekk war naa jógee ci club ba mu nekkoon. ndax da ngeen di jaar doon leen di jënd après njëg bu neex fi mu ne su ngeen ci match bi il faut rester attendre le mieux offrant le mieux offrant yéen nag yéen laay wax yéen joueurs yi yéen a tax ñu yàq sama oto ca Coupe d'Afrique ba wax naa Macky Sall ne ko na ma fay Macky Sall nangu ma fay te diggante bi maye na fi ay oto oto oto keroog xale yi doon ma doon rey ci biir doon yëg ci kaw di fecc am na koo xam ne bi mu dóoree ab tànkam ci sama digg bopp bi la ko dóor waaw xoolal lii mooy ca Coupe d'Afrique ba ñëpp ay vert jaune rouge nañu sol xoolal. léegi na ko jar na ko jar nañu góorgóorlu mi ngi nii lii de ca Coupe d'Afrique ba la. ba léegi Macky Sall fay ma xool gune yi dafa nga ne oto bi bu ma ko buggaan di jox mu oto bu bees taq taq taq la ma ko buggaan jox dégg nga ma ñëw gune yi xolal yéeg ci kaw oto bi di fek ci ci kaw di ko sam ñëpp ay maillot vert zone rouge moom lañ sol ba xam nga ne Macky Sall waroon na maa fay de. yàlla baax na barke borom Touba Mbacke waroon na maa fay diggante bi may na fi ay doomu aadama lu ëpp lii Marème Faye Sall Marème Faye soxna Marème fay wallaahi lii lii xam nga ne Macky Sall waru woon sax xaar. ñu koy génnee ak di ko wax keroog ba góor gi si ñeen di ñëw ca moom ànd ak Derrick Rose dama ko ne soo demee nel Macky Sall na ma fay sama oto bi soxna Dieng madame Mbacke semaine kii weer yële. papa dama waxu oto bi yow ngir. du ma bàyyi waxu oto bi daf maa metti léegi mat at. daf maa metti waaw baax na amul problème bàyyi mu sedd faal di nga am lu gën loolu. wallaay dinaa am lu ko gën barke borom Tuubaa bàyyi mu sedd am na koo xam ne nee na man dinaa la jox oto. waa jeex na waaw ci barke seen ma léegi yàlla baax na yàlla yàlla def li gën waaw dugg ci thème bi li loolu moo doon message bi nga xam ne papa jagleel na leen ko on espère que bu ñu fiy toogaat mercredi dina fekk ñu toog suñu ndam incha allah ñu ne maison lieu de fréquentation ba kër yi kat la muy wax mhm. ñoo tànn seenu thème de ñoom ñoo ko wax ay siis su ngeen dégloo thème bi ba mu jeex su ma ko libelee di nga xam ne ay siis dëgg dëgg dëgg dëgg la amoon démb ak bërki démb c'est en voie de disparition yàlla na ma yàlla musal ci lii lii yàlla na ma ci yàlla ak yonent bi ak borom Tuubaa Mbàkke musal ñu ne maison lieu de fréquentation def deux points daal ne l'intimité du couple mise à rude épreuve l'intimité du couple mise à rude épreuve l'intimité du couple mise à rude épreuve jot nga wàcc sa kër. ñëw dajaloo ci kër boo xam ne say xarit ñoom yéen a nekk noo gune yéen a nekk doo gune ci gune ba mag moo xam yàlla mu ne ko gan moo xam sunu borom def muy koo xam ne ku baax la ku laa biir la moo xam muy koo xam ne nitu nit ñi la moo xam muy koo xam ne su sañoon day togg rek di joxe comme na ko ay maamam daan def nga xam ne su toogee duñ koy wër mbooloo mi waxtaan wi jollu fii ñu añ toog di waxtaan ba ngoon wala ba timis ku nekk dem ñibbi ñoom nee nañu loolu nee na dem na dema dema dem ba nee na daal da leen a xatal daal nee na loolu daal da leen a xatal ndax nee nañu nga añ ba pare nekk ak sa borom kër dégg nga nga naan yi lëwal ne dégg nga war a tëdd nelaw nee na nu nekk say nopp waajal jaajal jaajal jaajal nee na kii naaj nee na yow doo nelaw dégg nga doo nga soxla sa jëkkër xam naa da sa waxtu woowaa doon koy soxla doon koy soxla maanaam ci biir soxla boobu ñu koy soxla maanaam kii di bëgg a ubbi nee na léegi ku fa nekk ku nekk da nga leen di xatal kon maanaam ay samedi dimanche yooyu daje ci kër maanaam borom kër yi. seeni soxna te ngeen doon ay xarit cangu ne ba nëgë bi neenam daal neenam daal neenam daal jaaduwul daal neenam daal jaaduwul reer jot ñu ñëw toog daal di fay toog di waxtaan jëmale ay minuit une heure daal da leen di xatal xatal gu méttee métti boo xam ne daal neenam suñu sañoon suñuy reer di fatu ak di ubbi wala waaw waaw neenam suñu reeree ubbi neenam loolu la ñu bëgg <laughs> ba ma juddoo sama ndey ak sama baay lii tey ma si tan daan reer di ngonal di ngonal léegi daw ci biir kër gi kilifa yi toog dégg nga ñuy waxtaan lal basang yi ñuy waxtaan jëmale bët bu set xam-xam di fa génn ndax nee nañu buur daa war a guddub nopp nee nañu ab sëriñ daa war guddub nopp nee nañu kilifa daa war guddub nopp nee nañu lu tax ñu ne lu waay foog ci mbedd mi dajale ko nee na su ngoone nag ba ñu féntoo nag ba toog nag ci reerandoo yi ba reer ba pare nee nañu waxtaan bi day jëm bët bu set loolu da laa xamoon démb ak barki démb su doon ca pays démb ak barki démb nga xam ne boobu ay maam lañ leen defaat ma binta gay def mbatta sago gi ay maam ci yaasin yaasin jenn ay maam teeg amari joor borso daawuñu wéet ñu nekk ay jàmboor ñi nga xam ne ay bay bayaar nanu doon daan toog suñu ndékkee ndékk li day toog mu wër di waxtaan ba une heure suñu ndékkee doom yi toog waxtaan bi di yo fu ne la waay di jógee di ndékki mm-hmm. nga xam ne suñ toogee ku yeewu suñ la ne xaaral ndékki nga ne déet maa ngi jëm ca ndékki la ñu ne fan ñu ne sunnatu rasul maa ngi jëm sunnatu nga xam ne nit dina doxee ca sancaan ya di ñëw di ñëw ba sunnatu rek waxuma la ndékki li waaye xam-xam ba fay génnee ndax sëñ bi suy jënd ay saakuy mburu lay day bind ay beñee ay beñee lay bind soxna maam parti defar kere ji à part fële mu ñëw ak ñoom soxna maam bu sojaaj defal kere ji mu ñëw supp bi nekk na le gune yi ndaw yi ñëpp a ko tàmm ñëpp a koo ko laaj li ko dalay santaan yu daaru salaam ya ba kere ngay dem bëbërël ba kere ngay ñëw ba daaru raxmaan ñëpp dañuy xëy daal di sosi ci sëñ Modou Habib muy ree rek muy ree rek kooka attan na loola waaye lii ma gis tey nga xam ne nenu lii nañuy jooy nee nanu lii nañuy jooy nit daal wasta ñëw daal ci nit daal maanaam di ko toogaanu genn toogaanu boo xam ne nu añee ba pare dootul mën a fattu ak borom këram mbaa suñu reeree pare dootul mën a fattu ak borom këram ndax nee na foofu day yàq intimité bi intimité bi mooy maanaam seen bëggante gënu nekkee ak yi nga xam ne moom la ñuy fekk ak añ ba pare fatu wala reer ba pare fatu ñoom daal loolu lañu bëgg wéet gi nañu bëgg mhm. ñoom nag loolu noonu wax liir naa thème bi loolu la léegi nag bàyyi leen mu dem nan leen dem ba xam maison lieu de fréquentation l'intimité du couple mise à rude épreuve loolu la ñuy waxtaane tey toogal papa jërëjëf mais wax ko ci olof li ma la wax la ci olof la waaw loolu la waaw dama dama dama <laughs> lii rek ñeme woo ko wax ci olof dama <laughs> lii rek dama lii li nga wax rek Fall man ku ma wuma tey sama kii bi sama yaram bi nii instant yi yàlla na ci yàlla musal benn <laughs> yàlla na ma yàlla musal ci benn am solo on parle de l'intimité mais côté couple euh, Sénégal euh, nee nañu ñu ci bëri boobu seen i kër yi dañ koy envahir à tout moment damay laajte de ba di yàq yenn yi. ba di yàqal ñenn ñi. ayca ñëwal. dañuy envahir seen kër mënu ko wax ci olof de envahir mooy maanaam seen kër gi. donc koy fees maanaam papa man joolaa la. maison lieu de fréquentation l'intimité du couple mise à rude épreuve. xoolal kii di dëggal. mu bari Sénégal. nekk loo xam ne euh, pour man Sénégal rek la am. parce que. fi koy gis du bari de. fi koy gis du bari te dafa bokk ci retardement sax réew. désolé on n'est pas en direct sur bi on a quelques mais ñu ngi en direct sur ak téléphone excuse téléphone bi baax na. tout à fait liggéey naa ci tey suba. waaw baax ba pare nekk loo xam ne pour man. day retardé loo sax réew. parce que réew. Mhm. bu fekkee nit ñi dañu am temps. développement am dina yéex trop parce que mënoo te nit ku nekk ci àdduna am nga loo xam ne yaa ko moomal sa bopp surtout sénégalais yi nga xam ne liñ leen am na si ñoo xam ne dañ leen ko xamal li ñu gën a mun mooy ñëw sa kër pour génn dem reporter ji ko si biti. yàlla démarré des te dafa bari ñi ngay gis kër yu bari ngay gis mu am ay nit dafay ñëw. di fréquenté wu xamal ne am na wax koo xam ne mu ngi ci suuf. Mhm. chaque fois lu xew sa kër am na ñu ko fay jëlee yóbbu feneen. Mhm. muy lu ñaaw loolu laay wooyee des fois méchanceté bi nga xam ne am na yenn sénégalais yoo xam ne am nañ ko. loolu de moom parce que des fois bu fekkee da ngeen di ñëw kër nit. sénégalais moo bëgg a dem di toog am na yenn heure yoo xam ne ci couple ñoom dañ ko war a moomal seen bopp. Hmm. très important si àdduna. Hmm. kenn bañul. kenn seet si kenn. kenn seet si waxuñu loolu mais est-ce qu'il y lieu chaque jour nga ñëw toog si kër couple si bi bu jabar ji ñëwee wàcc nuyu leen na ngeen def na ngeen def gaa ñi waxtaan tuuti bu fa ñëwul demul yoonam dina am ñu koy sikk ne kii jabar ji dafa siis te siisul. des fois bëgg na boppam loolu bokkul ak tey. man maa leen invité pour ngeen ñëw sama kër ñu yendu añ toog waxtaan njogonal on s'en fout ba reer. mais su loolu weesoo kenn warta dem këram. mais su loolu weesoo. waruñu am jot sax jot. su loolu weesoo nit ñi waruñu am jot à chaque jour di dem kër jàmbur. parce que li ñuy wax intimité si couple dafa am importance. parce que intimité ci couple ak am importance man kenn du ma privé sama liberté kenn du ma privé sama euh, intimité. Hmm. je ne vais jamais accepter ça ku mu munti doon loolu day dem ba reposer wu sax ci famille bi parce que des fois c'est pas chaque fois que la famille bi war a ñëw je suis désolé am na famille yoo xam ne dañoo am xel bu seen doom di say fenn duñ fa dem chaque fois parce que xam nañ ne que seen doom le temps que ñu fay dem chaque fois am na loo xam ne dina ko échapper moom parce que chaque fois nga ñeen ngeen ñëw toog ñun da tey fa la ñuy añee lundi ok ñëw leen añ ngeen ba pare jëkkëram wàcc na jëkkëram añ ak yéen ba pare jëkkëram bu waree fees wala mu war a nekk moom soxla jabaram y aura des problèmes parce que du mun a bàyyi famille bi foofu bu leen fa bàyyee ñu ne kii de respecté wuñu kii de yéeguñu mentalité sénégalais la ñuy wax fi mu nekk mentalité bi moo graaw mhm. parce que kenn iñaanewul ñun bi ñu nekkee xale yëpp kenn iñaanewul nit di ñëw seen kër di lekk mais dafa am jamono joo xam ne il faut nit ñi xam ne kenn amatul jot grand place neex na trop mais bu tombee weekend ñeen hmm. ñëw weekend ne kat tey kër Benoît la Benoît ayee wala Benoît yëkkati téléphone ne leen les maa leen invité yéen ñëpp kaay leen yendu si là je suis d'accord mu dem ba si biir kër yi nga xam ne jigéen ñi dañ fay dem sëyi da nga gis sa benn xarit bu nekk si mbedd bi huit heures du matin du waaye sër mu sax des fois du ko taal ñëw toog sa digg néeg doo ko mun dàq. doo ko mun dàq. mais am na loo xam ne sax si li muy def noonu di koy def chaque jour chaque mi ngi lay yàqal yow en tant que femme mariée. Mhm. new ma bu kenn. amul droit seeti sa xarit. mais doo jógee ba kiri koro chaque suba teel nga woddu sa sœur. ñëw fa ngay ndekkee si lalam fa ngay waxtaan ak moom moom amul tul lu muy topp toppatoowee këram loolu ça crée problème parce que jëkkëram mun na wàcc <laughs> gis jabar ji kër gi tilim il est mal à l'aise chez lui il est parce que am na loo xam ne am na ku ko koy euh, defloo te su boobaa du ko mën a écoute am na yenn moment nag maa moom sama bopp nit ku nekk si àdduna am na yenn moment boo leen ko waxul ñoom war nañ xam ne yaa moom sa bopp fekkee nag da ngeen nekk si kër mbooloo man Benoît ma am jabar sañu kër samay frère seen ñeenti jabaram fa ñoom ñëpp seen mbokk yi di ñëw mais intimité boobu pour nga am kook sa jabar il faut des fois nga am autorisation pour jël sa jabar ne ko intimité biñ fi nar a am dina metti trop kañ dem boo ko defee ñu ne da nga siis. waaw da ngay daw nit ñi après. c'est pas daw nit ñi dama ne. <laughs> boo nekkee si këru mbooloo ku bari. nga am sa néeg fële. waaw say mbokk Moussa am néeg fii. say mbokk laa la wax. Mhm. toujours des fois on peut être ensemble. <laughs> mais des fois j'ai envie d'être seul. ak sama épouse. waaw pour enjoy carrément li nga xam ne ñu ngi koy dund. waxal enjoy ci aw ci aw ci olof dina a jaxasoo noos. waaw léeg-léeg ndaw si sol tubéy du ko mën merci. tegan da nga koy bëgg. ah oui. bien sûr on est on est des eh. humains. on est des humains ku bëggul loolu. sa biir kër de. sa biir kër bëggoo sa jabar des fois am nu mu mel nga xool ko kontaan wala wala bëgguñu loolu. et c'est nga ne. per bëggu ko de. non moom bu ko bëggul. bu ko bëggul peut-être bëggu ko ku nekk amul sa choix ku nekk amul sa choix mais dama ne. genre kër yaa bëgg di def awray neen di défilé ci biir kër sabaroon sa kër di la xool sol su fees boo xam ne sa xottu yëpp. mi ngi ci bitti. non ba en ah, kay. doo ko fa mun def. ah mais da nga koy bëgg. mais suñu nekkoon maak moom rek suñu kër. waaw ah oui. je vais apprécier. waaw man bokk na ab yar. non loolu question bokk ab yar. bàyyi ko moom mu yeggal. daf ma lew. bokk na ab yar waaw bokk na ab yar. daf ma lew. waaw bokk na ab yar. xam nga mais loolu. bu fekkee kër gi. enjoy. ñëpp a fa nekk <laughs> mu bari nit. Mm-hmm. Chamad Cissé nee na mu ngi lay poser benn question l'intimité est-elle indispensable. très indispensable dans le couple. dans le couple très indispensable. Eh ay waay Ahmed Cissé l'intimité est très indispensable dans le couple hmm. di nga dem parce que loolu daf lay gën a approché ak sa jabar wala sa jëkkër <laughs> mais bu fekkee à chaque fois ti te détaches am na des femmes yoo xam ne dañu collante bu fekkee gars yi dañuy ñëw chaque jour da nga koy gis des fois mu beru ñëw toog si wetu jabar ji kott hmm. copains yi seen yoon nekku si waaye yow looy looy looy looy looy looy kii nu mu tudd loo koy jegee nii ah waaye xool yow yow li seen yoon looy jaay ind looy mais lan moo si seen yoon y a des femmes collantes. di la moquer. di la moquer di wax loolu mais ñoom ñooñu lan moo si seen yoon bu fekkee jabar ji loolu la bëgg ñëw fu jëkkër ji toog mu ne saraax si wetam yéen kañ yéen fa wàllu si yaar bàyyi leen jàmbur mu cole bu fekkee kole boobu def leen sauf. restez chez vous loolu message de jug ñu. bu fekkee loolu daf leen non bu fekkee loolu daf leen di gêner. bu fekkee non non loolu du message. parce que bu ah, fekkee da ngeen fa toog huit heures. loolu neuf heures di jot. <laughs> huit heures ba neuf heures dix heures. boo leen amul xel génn. jóg leen génn sama mais la femme am na yenn yoo xam ne mun na ko def pour war leen ne kat soxla naa. sama borom kër maanaam daw di uuf foofu di kii. daw di uufu. alors bind la message loolu de mooy ñibbi leen. daw di uufu. mooy ñibbi leen. non mais warul uuf. moom ci këru ankay. Ah, mais balaa ñu leen di ñibbi leen yéen am leen xel ne ñii nag dañu war a am seen liberté ngir yàlla. tey nag internet yi dafa mel ni ñoom ñëpp yàlla ñu àndal. waaw bu leen xew internet yi di toog di toog la nouvelle génération. suba ba vingt deux heures mm. vingt trois heures vingt quatre heures. Mm. sénégalais dañu am kers. ñëw ne la ah. nit fu mu ne ay mbokkam man de yooyu du ma ko am kers. nit fu mu ne ay mbokkam ko fa alors waxtu tëdd jot na de. damay fatu. nga mm, damay fatu fi mu nekk nii. maanaam woo na ma woy. et eh, am naa si droit. Eh, bañu ma leen. da ngeen di ñëw sama kër. mais sama intimité sama bu jotee. Hmm. bàyyi leen ma ma enjoy kook sama jabar quoi Safia. <laughs> jërëjëf merci est ce que. waaye sama tournée xam naa moom moom euh, du du du.